wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa amma baad assalaamu aleykum wa taala wa mbokki jullit mbokki opération Mbuur Say Cër ñoo bokk dellu si ak yéen di jël bi di ko teg ci loxo Cheikh Ismaïl Cheikh Madior mu jàllaleel ñu ko ci mboolem groupe bi Mbuur yi kenn ku nekk ci ñoom ñu leen di jox seen wàccuwaay bi leen suñ borom subhanahu wa taala jox di ñaan yàlla kaddu yi fekk leen ci jàmm te suñu borom barkeel ko ya rabbal alamin di leen wax ne alxamis bu jot ñu ànd ak yeen ci émission laayante biir di ñaan borom bi mu jéggal ñi nga xam ne ñoo ñu jiitu tabal leen jannatal firdaws ñun ñu fi desandi ñu bàyyi ko xel te xam ne kenn ku nekk am nga ca sa bis yàlla na yeex ndax loolu rek saa bu ko jullit bi dee fàttaliku rek am na yenn ci àdduna da koy bàyyi xel bu koy def boo dee julli na allahu akbar daa di mel ne dañ laa takk yow mii julli ba nga yegg ñu solal la perkaal laxas la teg la ci sa kanam nga ne man de bis dina ñëw ñu def ma nii foo jaar sa xel mépp nekk ci julli ko ndax danga xam ne jaamu yàlla googu bokk na ci li may waaje insha allahu kon dama koo war a jox lu mu aajowoo yépp waaye dugg ci biir julli ga di xalaat loo war a am ak noo war a def ak ba ma defee nangam la ma cay am ak di xaaru résultat bàyyi xel ma ñu koy foye loola nañu ko bàyyi xel bu baax te xamne li ñi def kat jaamu yalla la mbokk yi daal di duggaat ci biir kër gi daago waat forat fa tuuti fas ko yene and ak yeen muy ku kujje yi nga xamne mi ngi ci biir kër yi ñu and ko njabot ji te ngi ci biir këram yorum njabotam nga fekk ko fa ñu doon ñaari soxna kenn ku nekk masha allah yor na seen njaboot yow ngay doog a ñëw macha allah tabarakallah mu nekk point bu am solo mbokki mbokki soxna yi ndax ñett séq nañ ko muy soxna ak tànta yaay ak tànta ak njaboot ndax da gis ne ñaar dina am muy nit a ngi ci nit ñi fekk boroomu njaboot waaye day wujjante akum njabootam yaay ja moom teg na ko nee waaye njaboot ga nag lay wujjeel loolu ba tey am na waaye li tax ñu indi wax kaddu gi mooy xale yi nga xam ne dañoo màgg nekk jigéen yow yaay yow moom wujje nga ba toog moom rek mooy sa jikko mën nga ko trop nga jël sa doom nag dugal ca ne yee yaa ngi koy jëlloo paar ngir nga am foo sukkandiku yéen ñaar boo ko waxee dara jaarale ko ci xale ba fexe ba mu def kook moom yàlla ba mu toll ne moom nag ndax ñenn ci góor ñi dañuy takk ñoo xam ne ñoom seen doom yee tolloo da ngay gis fa ñu takk ñoo xam ne seeni doom a leen ëpp nga daal di ñëw nag jël arme bi ne daal di sëf ci biir kër wan ko ne ko man fi mu ma fekk maak sama njaboot ngeen ni kër kër yi ba génnee kooka mu dem loolu moom am na fi kenn ko nekk ci ñun jigéen dañu koy dund bu ko defee ñu ne ah moom ak njabot gu màgg da la yor moo tax de kooko togu fa ndax njaboot ga may mu ko jàmm nga gis koo xam ne day amul njabootam mu fekk ko fa kooko jógul ngir ak moom de njabot da fas na yéene ñu jox ko respect bi nga xam ne moom lañ jox seen yaay ndax mooy jàll ca seen ginnaaw papa comme na fa seen yaay di jàlle mbokk yi ñu lay wax ne ku ñu takkal keneen ku la fekk si boo ko ne jàkk mu tolloo sa doom waaye wute nañ ndax kooku dangay ngay aye ci sa borom kër fegal jox ko mu jox jël kon la ngeen ne ay ay loolu rawee xale boobu nga jël taxawal ko ci kanamam naxaar wàlla man nag xale dama cee bëggul yaay juy jël ak njabootam di ko jëfandikoo mooy di leen sol ay xel sa tànta def na nangam defal nangam gis naa koo xamante ne ak ceet la waaye kujjalante boobu ci biir da gis ne am na ñenn ci njëkk yi boo dee am mujj dañuy far te ku bees ñi nga xam ne yenn ganay seen mbir waaye mënuñoo dëkkal boo yoree nag équipe bu mel noonu ci sa biir kër yow mi nga xam ne yaa ngi ci biir kër gi ñu di la fekki ngay ñaar ngay benn di ñaar ñett di ñëw mbaa ñeent ànd leen ak dal xool si ngay teg sa tànk ba tey ker carrière bi dañ koo war a sàmm ndax wujje rek moo ko yàq wujje dina teg nit loo xam ne duutu mën a wax nit ñi déglu ko duutu doon ki nga xamante ne day digal kenn ba mu def ko nekkul référence def jëf na ci àdduna loo xam ne tim soof na ko waaye du ko tax a dem kooku wujje moo koy teg nit kon buñ ñëwee ci xale yooyu tey macha allah tabarakallah nga am ca xale bi ñëw toll na tantaam rek tanta ji nag nekk koo xam ne seet na ba xam ne xale bi moom la bëgg a defanteel bu ko defee yaay ji daf koy jàppale ci côté naan ko bu la defee lii defal lii bu la defee lii neel nii bu ko bu xottee loola mu xottil ko ko yaa ngi yàq sa doom di ko jox jikko joo xam ni du ko jëriñ ci heure boobu mu koy defee du ko jëriñ ci bu màggee loolu moo tax dangay gis xale buñ takkee ci kër mu dem sëy wujj rek lay xam day wujj ba naaw ndax ci yaayam la ko gisee yal nañu yàlla musal ci nday ju jël kujje def ko arme kooku foo ko fekk ak njabootam daanaka day kos di teg rek mbokk yi wujj amul amul njëriñ doom a ngi nii tey di wujje ak tantam xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi nag ñoom ñaar tolloo nañ waaye nag tolloowuñ ci seen kanamu pàpp seen tante nekk ko xam ne ku koy teg ay problème lay doon ndax day boole xam nga tante yi boole dafay am am na tante yoo xam ni dañuy boole li gën a yées ci jigéen mooy nga yor njaboot fekk ko ci kër xale ku mat a lebal lu baax la ndax day màgg xale ku mat a won jëf yu rafet la ndax day màgg xale ku mën a jox ay leçon yoo xam ne ëllëg bu lay xool doo rus te nekk ci kër fatara bu ndaw la waaye ak a gudd ci àdduna carrière la boo xam ne xale du ko fàtte te xale boobu mooy màgg nekk magam jëmm te am nga ca wàll nit a ngi dund ak doom yi yi mu fekk ci biir kër gi dem ba doom yooyu seen tante gënal leen seen yaay moo ko jëf waaye nit a ngi dund ci biir kër jël doom yooyee def leen moroom ak di leen kokkal di leen teglu naqari dem ba ñoom bëggatuñ koo gis mu kontaan xajjale leen ak seen papa ba xale yooyu du nangoo dem ci seen papa di laaj ba seen yaay la ñuy waxal yaay moom mooy toog daal di serenkalaay nag fas yéene wax ak pàpp moom pour ñu am lu mu leen jox waaye ñoom mënoo leen yónni ci seen papa bañ dem day yóbbu tamit seenu fit moom seen tante jooji nga xam ne boole lay def moom mooy armam dafa am jigéen ñoo xam ne boolee seen arme buñ fekki seen borom njaboot dañuy boole boo deful attention yow mi seen yaay da ngay yàqule nga jël ca nag bàyyi yoo xam ne ñoom duñ benn nopp lañ lu leen jigéen wax gëm nañ ko góor ñi tamit ci biir góor ñi ñenn ci ñoom am nañu ci mel noonu buñ ñëwee boole duñ laaj kañuy boole de gone bu xasee ba am fukki at ak juróom mazar na danga kaa war a woo ba ñëw nga ne ko yow eh, lan nga jot sa nàngam ak nangam ji lu tax nga dem di ko def lu tax nga def ko lam lay wax déglu ko doonte soo paree doo ca jaar sax bu la neexee ndax yaa ko yilif waaye déglu waaye loolu day dal sax ci ña góor gu yor ñaari soxna ba ñett benn soxna bu garaaw mooy nekk ci biir bu jàppee kenn ka ba bàyyi ko bu yeewoo bu ko nuyoo du ko fay mu daal di jaaxle nag yàlla bu mu tasee nag koo xam ne ndeysaan dafa ragal ko ko mere ñaareel ba xamul tànki kudde kujje ñetteel ba gëm na ne ne kii duma ma sa yàq ci sama sama borom kër ndax am na ñu mel noonu am ñoom dañ leen yar ba bu ñu weree nit seen jikko la ñuy jël dundee ko ak ñoom bàyyi ko jikkoom nga daan ne waaw man kii lu ma ko def tey ba mu def ma nii fekk yow sa morooma fa jaar wax na ca yow loo xam ne yàqu nga xale boobu nag tey ñu ñëw boole ko saa bu nekk rek ñuy boole buñ boolee papa ji day dóor ay saan bu ñu boolee day dem ba di koy yàqal sax ci mu di ko jox di wàññi la muy joxe day dem ba di koy yàqal ba nga xam ne papa ji lu man di wax ci kanamam mbaa lu mu def da koy ramaa bu koy xoos ak bët la koy jox mbokk soxna te lépp yaa ko liggéey <laughs> moo tax jigéen ñi ak ñoo bari kele waaye kele boobu mooy bii yées ci kele yi képp koo xam ne da koy jëfandikoo ngalla bul defee ne sa moroom moom nga koy def de dina ci am lu ko naqari de moom yaay ja waaye yowit it da ci am lu la naqari ëllëg ndax dama naan rangooñ yoo sotti séentul say rangooñ boo sottee rangooñ yi gone danga gisaat yooyu gone boo sottee rangooñ yi mag da nga gis yooyu magam jëm am na ko xam dañ ko wàccee tàntaam yaayam nag nekku fa moom la fa fekk waaye xale bi tante ji dem nañ ba xam ne oto ba départ na ngir mi ngi sëy xale bi lant na du génn ci néeg biñ koy wàccee fekk yaayam dafa nekkul foofu néeg yaayama dafa génn te foofu la papa ji préparé ngir wàccee ko kere ki ñu may premier njëkke kooku moo ñëw génnee ko ca bitti ñu doo koy jox beneen néeg ne ko foofu ngay ne ndax mooy taawu yaayam waaye loolu doyu ci de ba tante ji wàccee daa commencé foo xamante ne buñ ca demee ci sëriñ rek dina moo papa ji dina falaxoo rek xale bi di ko def doonul xale nag fekk na ko am fanweeri at waaye sëyiwul maye nañ ko waaye sëyiwul mu ngi yor ñaari doom ci kër gi léegi lu mujj soppaliku léegi moom moo ne moo mujj soppaliku wujj yaayam bëggu koo gis moom xale bu jigéen boobu bis bi nga xamee ne nag ci nga demee soxna soosi di ñëw yoroon na doom joo xam ne doomi jiit la la moom moo daal féetewoo waañ daa teel a man lool yaayam da koo teel a ndax doomi jiit le day tumuraanke xam ngeen ne daal di yëg moom na kër gi luñ fiy def moo ko fi war a def waaye ñu ne ci seen ëttab baay moom am na ñoo xam dañ leen di aj xale bi daal di ñëw dem uti ay mbiram ban jox ko ko ne ko buy buy togg añ rek fexeel ba sotti ko ci moo tax dañ naan jéeg buy togg ci kër goo xam ne ñooñu seeni jikko doy na waar te seen armu bépp lool la togg toog boo paree tëjal sa waañ roppi caabi bu waañ amul caabi sa jar na boo amee sa xaalisu bopp nga def ko ca ndax xam ne ñi ma dëkkal dañoo doy waar te lekk moom ci ay biiri jàmbur nga koy def takk ka yekk taaj lañ koy jiiñ fekk du moom sax keneen la piège yooyu yëpp ngi ci biir kër yi am na ñoo xam ne dalluwuñ at ndikuwuñ loo def ñu yàqal la ko nit a ngi ci kër baax bay bëgg a dee ñëpp xam ne kii baax na du jëfandikoo yu mel noonu waaye bis lañ ko cay defal loo xamante ne bi loola yëpp amul lum cay weddi ndax moo aye waaye xale bu jiitle boobu nag dafa yaru dañ koo yar nekkul koo xam day nettali mbaa mu gis dara di ko wax moo taxoon waa kër gépp ko bëggoon nag mu ñëw fekk doom jooji tànt koo ki di wujjeeg tànta ji yorub butéel di sotti ci cil ndax tay na ba xeeb sóor rek ko defee moom mu dugg ca biir ne ba di noppalu xale bu jigéen boobu moo ñëwaat fekk mu jël butéel bi di sotti ci biir cin li xale bi taxaw ci ginnaawam ba mu pare mu daal di ne sigget mu yem ci moom mu ne ko pare nga xale bee wax lii de may ma man ma sóor kero la ko mag moom i respecté kero la bàyyi lépp la muy defante ak yaayam de leen déglu xale bi moo tax nekk doon gone teewuta am fulla ku jëlante ak sa yaay baaxul yaay ji da ko daa dóor ba mu bëgg a dee na ko perangum jàmbur be doo fa dem ndox bëgg mu nga fay naa ne bëgguma nga def ko ndax kii bëgguma man lay wujjante mu na ko yaay man duma wàlli bañe xam ngeen muy wàlli bañe mooy su ma meree sa tànta mere mere ko dama kontur loolu sa tante bëgguma xale boo gis ñu def noonu na la leer na dina yor jikkoy kujje joo xam ne danga ko dégg foo xam ne ca këram du la neex mbaa mu gàdduwaat si bagaasam fekki si la te ku ko mokkal danga nga toj ci kër mbaa nga fekki si waat sa ndey moo tax jërte jàng xale boobu daal di sóor ba pare ñam def yi mu war a def yëpp sóor waxa si boolam sangu solu yëram ñëw fekk ci wëlbati yekk des ci yaayam mooy ñëw séddale waaye kere dégg naa mag mi yaru na yaru boo xam ne mën a tut ak génn néegam ba ndax xale bi dina wax lii moo tax gone dañ koy yar mu tëj ci ci lu mu gis gone dañ koy yar mu ñàkk a nettali gone dañ koy yar ci mu maandu ci diggante ñaari mag yuy sëy ci kër gone boo gis mu mën a wujje ëtt ba mu jóge kujjee nga fa kon jërul ubbi mu daal di ñëw ñu añ mu gis ñëpp toog di lekk mu daal di ñëw yaay diw kaay añ daal dem yaay diw ñëw ne ci ndab li waaye waxul waaye nag waa kër jëpp ngi laaj nag ak ni mënoon a waxtaane kii tey xanaa daa feebar nga dégg ñu naan ko diw da dangaa feebar tey jii di tey da moom dégguñu benn waxtaan mu ne sama yaram a diis kon mbokk yi lu waay di def day diis gis nga ci def lu bon ba pare ba xam ne ña ngi koy lekk tey da la ma bëggoon dina am bu ci kanamee tuuti moom jëkkër ji duutuñu tuddante naa fi taalu bal foo jaar diis ndax jëmmi doomu aadama nga yàq kon yàq amul njëriñ piège yi jëm ci yooyu dafa amul njëriñ ci doomu aadama amul benn jigéen bu ko def ci kaw suuf ba pare nag am lu la neex ci sa mujj amul neex neex gi moom commencement bi la rek boo ko séqee ko mën a muñ mbokk yi xale bi raxas ba pare dem ba ca moom mu ne ko yaay diw ba mu ne ah mu ne ko li ma gis nga def ko tey de man musuma dugg sama diggante ak yow ak sama yaay waaye dinaa la dénk benn kàddu mooy gi bi bii mooy sa ñaareelu yoon ma di ko gis nit ñi lekk nañ ko def xaw ma lu muy jëriñ sama yaay xaw ma loo ca def ndax xam naa ne moom loola nga ca jublu waaye li ma bëgg mooy bu ma déggati benn kàddu booy dépassé sama yaay te bis boo ko defee dinaa ko wax ci digg ëtt bi ni demee moo tax danga gis mag moo xam ne gone da koy kidnap ci li mu def tey bañ ku ko wax bu defee gone guy yeewu te noppi xam fu muy teg tànkam gone dina regle ñaari mag waaye ci ma boobu la leen regle régler leen ci loo xam ne bu ko waxee seen àdduna tukki mu téye ci mag mi kero la gis mu wàññeeku yaayam gis kii di wàññi ci moom di ko won ab yar yaay ji loolu jaaxal ko lool mu naan ko diw yow kii daa mel ne dala rus xam naa moo tax lépp lu ma jàppaloon da koy bàyyi man da diw jaaxal na ma di woo xale bi di ko ko wax mu ne ko yaay àdduna lu mu yàgg-yàgg rek ak loo man lu bon rek bu yàggee day am lu tax nga bàyyi ko yow da nga doon wut lu tax mu bàkku nga ko doon defanteeg moom tey bàyyi na ko teg la fam la war a teg teg ko fam ne fam fa nga ko war a teg rek def ko ne doom joo jur te yaay nit bu dul muñ yaa ko wax de nga du am lu baax ku dul jëllale doo jëf boo dul maasala nag moom foo toll di fajal sa bopp te ñett yi benn baaxu ci ndax boo ci def gis résultat am ca saasa ak tooñ goo xam ne résultat ba day feeñ ca saasa kooku la muy la muy la muy la muy jëriñ boroom du bari waaye cay tooñ guñ nëb nga jàpp nit ki rek bu ayee sax nga fëkk góor ga ànd ak moom mu leer na sa ñaari fan jeex na nga jël bisub jàmbur dolli ca mbaa beneen yéen nga génn lool nag sori di ko jàngal ni ñuy waxee lu dul dëgg dangay gis góor ñoo xam ne ñenn ci ñoom bu ñuy wax liñ def day danay dalay leer ne nekkul ci dëgg dalay leer ne lii muy wax nii am na lu mu def Sénégal nag fi ne daa toll ci foo xam ne lu waaye def xam nañ ko xam nga lu fi nekk dafa am jigéen ñu am ful la ñu diiñ ñoo xam ne yu sew sewaan yooyu di ko kaas ñoom dañoo yëg ne tarde la ñoom ña leneen dañuy waaxu di dem bàyyi laak la nga gëm ba tax nga nëb ko ndax loolu yi nga yor tey jii muy fanub jàmbur boobu nga ci yokk wala ñaari fan yi sëñ bi di féete wala lay rek te fekk yow la nekkal kenn ku ne war na ko bàyyi xel ka koy jëflanteel xam na ko adduna dara du fi umpe waaye ba mu ko xamee nu mu def jàmm jëm seqoo na yow rek a fi ne moom rek ngay gis yàlla booy boroom xel mu gàtt nag danga naan ndeysaan moom amul benn problème yow daal moom fa mu toog fañ ko bàyyi fa lañ ko bàyyi moom da moo féetewoo kër ga moom daal na xëy am lu mu togg bale minas yéré seen beeg yëpp sax moo koy fóot mo amul benn problème moom sëñ bi sax même bu tardé bu ko bu ko téléphoné leure ko rek yow sama kooku moom du wax yow kooku bu lay amul problème yooyu yi yow nañ jaar di jàll cam yaa ngi ngëb saag boo xam ne bis boo ko yenne koo tiim ko dang ko dang ko tiim di ci tibb nang ka daa defee noonu nga koy wanaasoo muy metti lool nga ànd ak baat buy metti lu tax la nga daa jëf te xam ne lii du dëgg te ku ma ko defoon mu naqari ma tey moom laa gis suñu borom subhanahu wa day atte de ànd ak kii muñ ànd ak ki nga xam ne day maasa la di jëllale gëm li muy def tey jëf te yàlla tax kooku mat naa moytu de cey kii muñ te yàlla tax ak a moytu ay bakkaaram mën na laa yóbbe loo xam ne yàq ci sa alal lu bari nit a ngi nekk sox moroomam di am lum amul di ko tiitaru ci kawam di bangi bangi ci kawam bu ñëwee jàmm rek la ñuy fekk ndeysaan waaye da koy xool sax di ko ñaanal limaam mu barkeel fekk fa mu ko jëlee sax donte am na luñ ko ci ñamal waaye du ko jëfee moom lim mu gëm mooy maa ngi muñ te yàlla tax bu ma xool leneen mu ma koy yàqal diw mii tamit naa ko ñaanal lim am yàlla suñ borom subhanahu wa taala defal ko mu doon mu barkeel nga daal di jël diw moomee na tegab dof yàlla bu mu noppi nag ndeysaan kenn mës ta dégg lu mu yëkkati ci gémmiñam boole nga bu laajee sëriñ bi du ko jox ndax yàq nga ko ca moom ba mu doyal sëkk boole nga lu mu aye mbaa lu mu moom da nga fexe ba am noo ca manifesté woo ba jël ca dara mu yëg ko xol ba du neex mu bàyyi mu jàll jàll-jàllee yooyu yépp nag aw yoon lay xaar ku lebu yoon foo jaar danga fa jaar ndax danga ñëw fay lan fa leboon kon kenn ku nekk ci ñun lu waay man de teg sa moroomu jigéen bàyyil xel na dangeen ngeen tase rombantewaat ca mbedd ma ngeen fayantoo ko te jigéen lu mu def moroomam mu naqari wallahi xam ne ne suñ ko ko defee mu naqari ko yii ñuy defante yépp benn bu ci nit kenn ku ne dund rek dangay ngay yëg na yow mii kat man lii naqari na ma kenn ku ko attan ci ñu amul ndax benn affaire mooy manifesté wu ci suñu yaram muy fiir te kenn bëggul koo bokkal bu dee deuxième position ñu tuddee ñett boo ko takkaloo mu def mu def lu raw la nga def boo doon troisième quatrième ne salaamaaleykum da ngay dof tasaara say mbir ndax da nga defe noonu ku yegg dangay defe ne man rek a fiy ne ba nu la neex ngay doxe ah ak jooji nag nga gàddu yow pare goo ci ndax yàlla mën na laa jox koo xam ne mooy ñëw moom di faj nag lépp lu kee noppi woon moom mu di ko fajanteeg yow même boo leen bokkul foo leen ne mbir ma day safante ndax loo dundoo loo dundaloo nit la ñu di la ko delloo si mbokk yi dañu bàyyi xel ci dundal nit lu ko naqari te ñu bokk li nga xam ne mënuñu ko séddoo àdduna dara nekku fi te ku jëlante yi tar na gone yiñ ci boole nag mooy liy jeexal xol bi xale boobu néew na nga gis ko ci xale yi waaye léegi xale yi dañuy ràngu xale boobu yaa ngi yàq avenir ndax moom mënoon naa dem sëy yi te du mel noonu jikko yooyu du ko yor en cas danga ko ko war a nëbb bu fekkee tante ju mel noonu la am waaye ñu fàttaliku tamit ki jël doomi jàmbur dem ba takkalale ak seen baay ba duñ mën a wax ak moom te yow yaa koy jëf ci biir kër gi yal nañu yàlla musal ci ki nga xam ne moom na nopp borom këram mu taseeg benn nopp ka ca des moom góor ga moom bu xoolee benn baat bañ ko waxoon ca moom te bis bu nañu dolli ca benn mooy tax duutu ko mën a xool ndax moom lu bon bëggu ko te xam na ne kii ko bon la borom jikko yi bon la day dem sax bay xas doom yi seen yaay seen jikko ju bon jëm yoon nanga moom ngeen nuru fekk yoru ko waaye wii jigéen lañ monte ci bopp bi muy traversé di def lu ko soob waaye bu boobaa yow jigéen mi mu ko defal nga muñ ñu baree ngi ci biir kër yi bu buñ leen filmé woon lii may wax tey mooy conduire ca kër ga waaye kañ kay defanteel ma nga jël tànkam teg ca ñu teg ko dof daful junne jàpp ko ñu teg ko ko amul xel xelam la yor ndax bu yor woon xel du fa toog ñu teg ko ko mënta muñ bu yor xolu muñ du dékku lool te kenn mësu koo dégg kenn mësu koo atte ay jamono ñëw nag boroom kër bay yàqu la rek nag di dem lu mu laal mu yàqu soxna sa lu mu laal mu yàqu ñu naan kii da daa nekk ci diggante kii da tolof tolof bu dem sa moroom ñëw fekk àq ja mu bokkoon mooy atte si rek moom moo wàccaat ku ko bàyyeeg sa bopp mu fajal la waaye ku fajal sa bopp doo gis lu bari asalaamaaleykum wa rahmatullah loo fi muñ dafay jeex